man bleu blanc laa def moom blanc bleu la def donc euh, ñu koy jaajëfal euh, soxna bi non bàyyi ñu dem lu Saint Louis bàyyi ñu dem ndar rek ñu ndar ndar la ñu ndar ndar la ñu non lingeer la xam moom ziaman la. moo tax bii lingeer ak goy. bi ndar la ndar ndar la non lingeer la yaa ñaar ñëpp lingeer la. coach. ndar rek ñun Ila ndar rek. waaw ndar rek waaw. Ila Touba boo xew de. mais grave alors mbokk téléspectateur yi gis nañ ko comme chaque vendredi ci seen rubrique santé dañ leen daal di indi benn feebar tey nag ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy infertilité bu ñu waxee infertilité mooy ñi nga xamante ne nii mënuñu am doom alors Pa Gaoussou yow ci. kàllamay wolof infertilité nan lañ koy waxee parce que gis na ni tubaab infertilité lañ koy wax waaye bu dee wolof lan lañ koy wax ban tur lañ ko mën a jox. jaasi jaa jaasir. jaasir d'accord léegi lan mooy indi jaasir. bari na lu koy indi eh, mën na dal góor ko mën na dal jigéen. Mhm. mais boo wàññi eh, élément yu koy indi mhm. bari na lool lool te wute na eh, góor bu jaasir élément am à la mhm. jigéen bu jaasir élément am à la nañu leen expliquer clairement mm-hmm. lu koy indi mm-hmm. jigéen appareil génital bu mu am mooy dégg nga mm-hmm. dafa am utérus dafa am over yooyu ñooy liggéey pour doom am ovaire yi bu liggéeyee mooy nen mooy nen neen boobu bu demee ba daje ak euh, maniyu góor bu am spermatozoïde mhm. bu fekkee ñaar nen yooyu bonne qualité la mhm. mu daje ak spermatozoïde c'est-à-dire góor tamit góor du nen jigéen mooy nen mhm. weer bu nekk jigéen dina nen nen bi ki biir la nekk kenn ko gis comme ni ñuy gisee nen ganaar yi déedéet ci biir la nekk te lu tuuti la bët mënut ko gis mhm. machine moo koy gis mhm. appareil moo koy gis mhm. dégg donc weer bu nekk benn nen benn côté benn ovaire dina nen beneen weer mu abal beneen bi dañuy awante waaw léegi bu fekkee ne eh, yooyu dem na ba daje ak spermatozoïde góor dégg nga góor bu toogee par exemple ñaar heure mm-hmm. sëy de mm-hmm. dem quarante heures dina am quantité spermatozoïde boo xam ne mun na machine mun na ko ràññi pour ñu xam ndax lii mun na indi doom walla munul indi doom looloo tax eh, bu loolu amee ñaar nit yu sëy ñu toog ba ñaar at doom feeñ feeñul seen diggante dañu leen di wax ne dem leen seet docteur ñu seet ki ki ki problème yi fu mu jógee. ki am problème ku am problème léeg-léeg ñaar am problème jigéen bi am problème góor bi am problème auquel cas affaire bi dafay gën a eh, jafe faj bi dafay gën a jafe mais des fois góor rek mooy am problème boobu jigéen du ko am walla jigéen am problème boobu góor di du ko am mais bu fekkee ne ñaar yëpp am nañu problème souvent affaire bi dafay gën a jafe faj bi dafay gën a jafe waaw jigéen bu infertile des fois problème bi ci fonctionnement des trompes lay jóge wala des fois abus d'alcool bi cigarette yeeg yooyu noonu. non trompe trompe non trompe du dara. Mhm. trompe tuyau la tuyau la boo xam ne. mu mhm. eh, évacuer rek. Mhm. Eh, ovule bi. dégg problème bi ci ovaire yi la. nen kaay bi mu ñëw ovaire. trompe ak ovaire dégg nga bu fekkee ne joxe naa. Eh, nen yi ovule yu baaxul lu mu demee daje ak euh, mani eh, spermatozoïde fécondité du am il faut que ovule yu baax nekk ovule yu baax dangay ngay nga dégg nga dégg œuf clair nga dégg loolu léeg nga dégg loolu nu mu yu bon yi ñooy tax loolu am dégg donc ovaire yooyu mhm. mooy nen trompe bi nga wax boobu tuyau la boo xam ne mooy conduire ovule foofu lañ jaar dem ba daje ak euh, maniyu góor bi fécondation bi bu amee loolu cellule fécondée boobu mhm. boobu day dem toog ci biir utérus bi mhm. mais ki kaw mu fekkee butit jur jurkaay bi mhm. lu ñuy wax utérus boobu il faut que moom tamit nekk en bonne santé parce que neen bi fu mu war a toog neen fécondé boobu fu mu war a toog dégg nga bu kenn terrain bi eh, préparé wuñu ko bu baax dégg nga neen boobu du mën a jàpp loolu la ñuy wax souvent dégg nga problème de nidation fécondation bi mun na am mu dem mu dem mais li lii nii bi dégg nga terrain bi nooyul dégg nga neen bi du mun a am fu muy toog dégg nga mu deñ souvent Mhm. biir bi du taxaw. léegi ci mbirum alcool beeg tabac yi nag nan lay def. ci yow c'est après c'est après. Mhm. parce que alcool baaxul fen mhm. tabac baaxul fen drogue la boo xam ne. nit ki da koy jël yaakaar ne daf koy arrant dara mais dara baaxul fenn ki problème santé ñaar yooyu benn baax baaxul fenn. amul fenn foo xam ne ñu ne la lii baax na li baax na eh, eh, kii santé bii santé déedéet baaxul fenn. ba tey ci infertilité si wàllum jigéen parce que duggaguñu ci cadre ko góor gi des fois nga gis xale jigéen yi nga xamante ne dañuy utiliser li nga xamante ni moom mooy pilule du lendemain amagoo borom kër nga entretenir des rapports sexuels alors que tu n'es pas encore marié maintenant nga boo entretenir des rapports tu tu bois la léegi pilule du lendemain yooyu ban effet la mën a def mën na mën na la yàqal ci benn organe bi nekk ci sa biir ba tax na doo mën a am doon léegi bu ko defee nga infertile sans pour autant nga xam ni garab bi nga daan utiliser moom moo la ko teg Euh, pas forcément. Mhm. gis nga garab tubaab boo gis am na lu muy jëriñ am na lu muy yàq garab tubaab boo gis. Mhm. amul garab tubaab boo xam ne cent pour cent baax mhm. amul c'est comme garab nit ku ñuul garab boo gis rek dégg nga mun na la aar côté bi ki kaw boo ko jaaree yoon mais boo ko jaarul yoon mun na la gaañ beneen côté bi loolu tax et pas forcément que nit ki jël na pilule mhm. loolu tax du mën a am doom mhm. mais mun na nekk mhm. mun na nekk mais pas cent pour cent dégg nga parce que gis naa ñoo xam ne am nañu benn doom dégg nga ñu jël pilule dégg nga pour espacement de naissance dégg pour jur yu sorante dem dem dem ñu ëppal dégg nga que am na yoo xam ne boo koy naan wala boo koyee jëfandu mhm. doo gis règle mhm. doo nen mhm. dégg nga yooyu nag dañu nekk eh, eh, pause boo xam ne dégg nga bu yàggee eh, boo bàyyee dootuñu mun a jóg seen bopp il faut nga dem faju encore pour mu jóg nekk euh, en activité normale comme avant loolu day am dégg nga mais ñoo xam ne parce que képp kuy jëf pilule deux mois wala trois mois bu nekk da nga war a gis sa docteur mu xam fu mu toll. mais boo ko ëppalee rek. ñu gën a bare da ngay dem ba ah, bëgg amaati doom. problème taxaw. dañu gis ni que ni quatre vingt quatre vingt millions de la population par rapport a li nga xamante ne moom mooy infertilité mais bu fekkee góor bi lan mooy réellement cause infertilité par rapport à l'homme eh, quatre vingt quatre vingt pour cent. Mm-hmm. nga wax. quatre vingt millions quatre vingt millions de la population. du monde du monde du monde waaw waaw sont par rapport à li nga xamante ni moom mooy infertilité peut-être plus mais d'après sondage yi recherche quelques recherches peut-être mhm. parce que peut-être plus parce que pour que fécondation bi am mhm. dafay laaj eh, conditions yu bare par exemple jigéen mhm. jigéen boo gis weer bu nekk da nga war a nen déggul ma rek jigéen boo gis weer bu nekk wax ma ku àgg ménopause de ménopause moo xam ne ku du dootul gis règle parce que jigéen entre quatorze ans à foofu la a yem. Mhm. rarement ñeneen cinquante ans pour di mhm. Mhm. am na. am yu dem ba cinquante cinq ans ñu ngi gis règle. mais foofu la règle yem. mais jigéen boo gis. weer bu nekk benn semaine rek la mën a ëmb. benn semaine rek. Mhm. bu keneen semaine boobu seyul ak jëkkëram. Mhm. yàlla def seyul ak jëkkëram. Mhm. dégg eh, du mën a am doom. dégg nga même bu fekkee ne sëy na ak jëkkëram. bu fekkee ne jëkkëram lu muy joxe nekkul de bonne qualité. du mën a am doom. d'accord loolu tax sax bu ma gisee xale yi di jël pilule ay yooyu. Eh, dama ne dañu jàngul. Mhm. bu ñu jàngoon. Mhm. duñ jël pilule. Mhm. duñ jël lu leen tere am doom. parce que. jigéen bu nenee température am day carrément bu fekkee ne son mari jëkkëram bu fekkee ne jëkkëram xam na loolu ñu éviter rapport pendant ce temps là dégg nga doom du am. man mii di la wax ñetti jabar laa am mais musuma am doom bu ma buggul mu doom musuma bet ki suma jabar yi doom bu ñëw rek xam na ne man ak moom ñoo ko préparé kenn musul jël pilule kenn musul jël piqûre kenn musul nen nef musul am donc de maa ngi ñëw dangaa wax koo xam ne lu xóot la. waaw foofu mu leeral ko. il mu leer. mais jigéen bu xamee loolu. bu mhm. xamee cycle am. Mhm. léeg-léeg mu wax ko jëkkër ji jëkkër ji du du na du d'accord. Mhm. dégg nga ah, donc affaire ko eh, eh, déggoo la. bu ñu déggoo dara du am. kenn joo solowul pilule. mais bu ñu déggul nag loolu mooy indi pilule yi ay yooyu. dégg nga eh, mu indi nef ay yeneen yeneen affaire mais lu garab encore. am na jigéen yoo xam ne bu ñu nàmpal. Mhm. duñ gis règle. Mhm. ñooñu mun nañu ne fas facilement mhm. parce que xamuñu ne seen ovaires yi yeewu nañu mu ngi liggéey. donc comme gisuñu. bés bu ni ne et euh, si si ñoom dañuy wax ni boo fekkee ni tant que soo règle rek doo mënoo ëmb. booy nàmpal. loolu wax wax ñu jàngul. Ah. gis naa koo xam ne. am na huit gosses. musu gis règle. benn yoon la musa gis règle. nee ma naam. Mhm. benn yoon la musa gis règle mooy premier sëy. dégg nga bu muy nàmpal du gis règle du gis règle bee nàmpal bi fer rek balaa mu kii rek mu enchaîner. mais balaa beneen règle ñëw rek. mu ëmb. Mhm. donc loolu eh, seetu la rek il faut nga seet. waaw mhm. mais. jigéen bu gis règle normalement. Mm-hmm. même pas bu muy bu euh, buy nàmpal di gis règle biir war ko bett. d'accord waaw parce que moom cycle normal la am. d'accord mais Pa Gaoussou dañu gis ni des fois xale jigéen ñi dañuy am ay perturbation par rapport ak seen règle yi des fois da ngay toog deux mois doo gis sa règle nga tëbaat beneen mois nga gis sa règle léegi genre trouble yooyu noonu mënul indi ba am benn feebar bu nga xamante ni mu ngi ci biir ku jigéen ki dem ba juróo ko li nga xamante ni moom mooy infertilité. loolu lu gën a bare. Mhm. docteur dañu koy wax dystrophie ovarienne. exactement. dystrophie ovarienne c'est-à-dire nenkaay bi. Mhm. ovaire yi. Mhm. ñoo am problème bu ñu dox bu ñu doxul normalement. mun nañu tëb deux deux mois ba troisième mois mais dañ koy faj. cosaan daf koy faj. docteur ah, dañ koy faj. dégg loolu am na. mais jigéen bu amee problème boobu bu ko teelu faj. même bu demee sëy pour am doom day jafe. léegi ci wàllu góor ñi nag ñu dugg tuuti ci góor ñi parce que à chaque fois dañuy naan jigéen bu mënul euh, infertilité jigéen ñi la ñuy gën a indexé naan ñoom ñoo mënul am doom ñoom ñoo jaar si ñoom ñooy kii mais góor ñi tamit des fois dañuy infertile du ñu mën a am ay doom donc ñu bàyyi la nga expliquer lan mooy cause par rapport ak góor ñi. góor yi eh, surtout léegi. Mhm. léegi góor yi léegi seen infertilité dafa pare lool. seen télé sax ngay wax télé. Hmm? mooy télé. non télé télé télé dafa asthénie sexuelle. Mm-hmm. lu ñuy wax asthénie sexuelle wala eh, eh, eh, mm-hmm. impuissance. Mm-hmm. loolu mooy télé. d'accord mais pour jur c'est autre chose. parce que ni si mun na télé mu am doom. waaw ni si mun na viril du am doom. donc góor. dafa am ñaar testicule yu nekk ci suuf ñooy préparer lépp. ñaar xeer yooyu nekk suuf ñooy préparé yëpp mooy dem bu prépa bu toggee lu baax dégg bu lu baax boobu bu demee daje ak ba neen e, jigéen ji mu jàpp est-ce que meew xam nga meew meew waa meew boo jëlee meew def ko sa kaas nga jël limon dagg ko paccal ko ci lu muy def du dee jàpp dee mel ni dee eh woy day woy si sa si saa si. day woy noonu la mel nag. góor mooy limon bi. Ah. jigéen mooy meew bi dégg nga. Mhm. góor. Mhm. bu demee tombé ak euh, ovule jigéen bi. Mhm. bu kenn de bonne qualité la. bu jàppee rek day woy bu woy rek dégg nga am na. muy dem di bu mu war a toog. ci utérus bi. muy màgg foofu muy màgg foofu muy màgg foofu ba mu màtt aussi. dégg mais léegi go emi et góor yi. Mhm. seen euh, limon boobu par exemple. Mhm. ah dama j'appelle ça limon. Mhm. bu fekkee ne saful xorom. saful limon dégg nga te quantité bi jus bi barewul. boo ko pàccee ay tokk tokko nga gis. dégg dañ koy wax oligospermie. c'est-à-dire maniw bi doyul. dégg pour que maniw bi doy docteur yi ñu ne. góor war na am nu mu bon bon bon vingt millions de spermatozoïdes boo xam ne sëy bu nekk war na ko génne dem ci jigéen yi. vingt millions benn rek moo am doole pour pénétrer euh, l'ovule normal. léegi donc sens bu rëy la. d'accord léegi Pakaw su dañu gis ni suñu mbokk sama mbokk jigéen ñi à chaque fois bu ñuy togg lu ne lañ ciy def saf safal yi mënul dem ba indil ku góor ki infertilité. bul tëb <laughs> bul tëb. bu nga gis. <laughs> Uh-huh. da nga si ñaar nit yi sëy dégg nga ñaar nit yi sëy doom amul seen diggante ñu gën a bare ci nit ku ñuul yi jigéen la ñu mhm. jigéen dina faju ba sonn mhm. dara dinaa la wax benn wax mhm. sama benn xarit dafa am aaw aaw bi jox ko doom six am ñaareel ñaareel bi jox ko doom quatre ñeenti doom sëriñam may ko doom jab doomam sëriñam mhm. ku mu yaakaar wasila xam wasila nekk may ko doomam mhm. nekk doom sëriñ bi pendant cinq ans amuñu dara mhm. doom sëriñ bi fu nekk la dugg dégg ah aaw bi am na ñaareel bi am na lu tax yow am kon yow la ba mu ñëwee ki man wax ma loolu ma ne ko sëriñ bi dafa ndànk bu jiñ doom jàmbur pour yaay mu ne ma ah loo da nga bëgg wax ni man la ma ne ko waaw mun naa wax loolu <coughs> mu ne ma lu tax nga wax loolu mm-hmm. ma ne ko sa aaw bi ak sa ñaareel bi ñetteel bi ñëw cinq ans benn doom juddul kër gi mm-hmm. ñoom ñeenti ñoom yëpp am benn doom juddu kër bi nga bëgg a jiñ mm-hmm. ne ma lu tax wax loolu ma ne ko dama laaj aaw bi ndax dafay jël pilule mu laaj aaw bi jël téléphone laaj aaw bi mu ne ko loolu mooy la xaw ma loolu mu jël téléphone bi laaj ñaar xaw ma loolu mm-hmm. mu ne ko góor gi mm-hmm. defal nànk demal seet sa bopp mu ne ma ah yow yaa ngi bëgg a wax ni man la ma ne ko déet <laughs> wax ma la yow la mm-hmm. mais demal seet sa mu ne ma naka la ma defal ko bulletin spermogramme mu dem seet eh, suñu fa eh, docteur Aftou ku gaañu ki bu nekkoon Dantec mu dem seet ko mu def ko spermogramme aziospermie totale azoosperme total mooy xam nga mooy lal mooy ki biir manu bi amul benn pepp bu war sax mu ñëw jox ma kayit bi ma liir ma ne ko xee eh, góor gi lii laa waxoon de yow la ne ma waaye lu tax man musuma feebar feebar góor musuma feebar jigéen dara jotuma maa ngi sëy normal nga ne man la ma ne ko xoolal liiral yow jàng nga tubaab liiral azoosperme total jëlal dictionnaire nga xool ko mu xool mu ne waaw loolu nu mu mën a demee. ma ne ko loolu dee dal góor. te du metti dee dal lu muy dal góor loolu lay dal jigéen jigéen mun na am doom benn doom ñaar doom rek mu taxaw. te daraata mu taxaw. mu ne ma léegi lu luy def ma bindeel ko beneen analyse mu dem def ko mu ñëw ak résultat ñu ubbi ko varicocèle varicocèle mooy lal mooy siditi yu nekk biir yuy kondi maniw bi mhm. ñoo fat mënul bay benn pepp génni mm-hmm. il faut ñu opérer ko tuuti pour yaatal yoon bi pour ma ne bu génnee kii xuur yi mm-hmm. mu mën a mm-hmm. àgg fu mu war a àgg dégg mu daal di ex respecté mu def kolo loolu bu mu ko indi varicocèle la indi ma delloo ko ki docteur yi ma ne ko demal parce que ñun suñu faj mën nañu ko faj mais dafay yeex ça va prendre trois ou six mois mais boo demee ki docteur yi léegi ça te demande rien de c'est un kii defar boo ñëwee jox la garab. Mhm. yàlla def mu def loolu. Mhm. bu mu ñëwee ma jox ko garab deux mois après troisième mois trois femmes yëpp biirandoo. ay <laughs> trois femmes yëpp biirandoo mu ñëw mu ma saaga mu ne ma benn xar bi yaa koy jënd da nga ne di ma saaga di ma wax ma ne ko waaw bu yàqu <laughs> donc. donc gisi nga jigéen yi dañu sonn suma morom góor yi dégg nga da ngay gis ñoo xam ne man dootuma dem ci docteur parce que am naa doom da ngay gis boo xam ne tàggoo nag aw jabaro mu takk keneen mm. mënu am doom mu ne waaw dégg nga eh, man amoon naa doom kale tamit amoon na doom fu mu nekkoon. Ah, mais loolu bu amee rek. ñaar yëpp ñoo war a dem toog mën na leen dab ñaar yëpp ñoo war a dem toog seen docteur yu seet seen affaire. Mhm. parce que vraiment ñun daal tant que yaa ngi jógal di sëy. je mhm. crois que tout tout s'arrête waaw léegi Paa góor yi du ñu nangu faju man daal émission bi neex na ma parce que man suma morom góor yi dañ ma rusloo man kan jigéen yi dañu nekk sama kanam di jooy. billaay di di ne man jëkkër lu ma ko wax rek dama ne fii kan waaye ci ma mer. dëgg la Paa hmm? yi tamit mer ah, jigéen ñi doo man jigéen man yéen laa ànda parce que suma moroom góor yi lu ma lu ñuy def. Hmm. du noonu. dëgg la du noonu il faut ñu dem seet seen bopp. Hmm, kenn matul. bu ñu defee loolu jàmm ne ñooy. mais jigéen rek mooy rëng rëng rëng jaay orom jaay lépp lu mu am rek dara dara naada boo demee si eh, maaman ñu ne ah rab nga am dugg nga am fekk dara dara dara mhm. benn dëgg na en tamit des fois xam nga euh, ñi nga xam si ñoom ñooy njëkk yi wala goro yi dañuy naan nekk di laxas naan dafa jaasir mënul am doom ku jigéen ki li muy dund si biir néegu sëyam day metti te des fois problème bi sa vient de l'homme donc léegi lekk yi nag pagaw am pagay am pagay waa léegi lekk bi ñuy jox jigéen ñi nag waa lekk bi mënul indi infertilité yi assaisonnement yooyu yooyu xaw xam nga xaw ma ko mhm. mais eh, am na lekk yoo xam ne boo ko joxee nit mhm. yaakaar ne da nga koy def pour mu nekk góor ah da nga ko bëgg a lor mhm. donc euh, je crois que jar ko jar ko nit bu nekk en bonne santé dégg nga suffit dégg nga mu lekk lekk normal rek mu normal d'accord mais bu fekkee ne yaa ngi bëgg a jox drogue yi di ko jox. Mhm. drogue yi léeg-léeg mu nekk mun na nekk handicap encore. Mhm. léegi ñi nga xamante ni dañuy am surpoids nee nañ loolu mën na ñàkk def activité sportive tamit mën na indi li nga xamante ni moom mooy infertilité est-ce que mën nga ma ko confirmer. nga ne. ñi nga xamante ni am surpoids. ak ñi nga xamante ni dañuy ñàkk def activité hmm. sportive nee nañ si samay gëstu mën na indi li nga xamante ni moom mooy infertilité par rapport loolu de dëgg la parce que graisse bi day bloqué lépp d'accord graisse bi bu bare ki nit hmm. day bloqué situation bi hmm. day bloqué circulation bi day bloqué lépp ob yeneen obésité sax baax d'ailleurs naar yi ñu ne góor oo moom bii bu mënul naan laalu bakkanam bi kooku moo ci góor d'accord góor bu defee ni homme eh, bi mënul laal fii kooku moitié góor ah. waaw loolu loolu loolu tax def biir bu rëy ay yooyu. Mhm. yooyu yëpp eh, gaaw dee donc. d'accord léegi Paa Gaoussou yan type bu âge ñooy ñëw en général di la poser problème mu infertilité parce que léegi dañu gis ni que ni très tôt les jeunes ils peuvent plus avoir d'enfants léegi yan type âge. waaw parce que am na ñoo xam ne. Mhm. masturbation moo leen di indi problème boobu masturbation mooy lan. mooy bu ñu toogee ñoom kenn. waaw masturbation rek. ah, ah eh, ñu bëgg seen xel dem ci sëy jigéen mm-hmm. nekku fi kenn nekku fi ñu jël seen awra bi di ko yëngal di ko yëngal ba mu ñu am plaisir loolu baaxul xale yu góor yi dañu ko def mais baaxul. xale góor bu ko defee bés boo amee jabar doo ko mën a satisfaire. Mm-hmm. il faut que ñu wax ko mu mais est-ce que tamit di teel am ay rapports sexuels par gosu mu indi li nga xam ne moom mooy infertilité. non non non non lépp loo gis rek boo ko ëppalee rek. Mhm. dina indi problème. mais sunu paa yi 19 ans lañu am jabar wala 17 ans non mais bokkul xam nga léegi jeune génération yi 15 ans boo ko amee commencé xam jigéen. léegi imaginer mais ñoom dañu am 15 ans. mais dañoo takkal leen jabar ñu takkal leen jabar non seulement mais ñu am ay jabar daawuñu woon foofee seen bopp. loolu moom non déedéet dama d'accord ak yéen loolu xamoo ko maîtriser wu toog teg ko si suuf. am na ñoo xam ne keroog da ngeen may sot sotoo léegi da ngeen may sot sotoo ah man jiñu ma ku àgg puberté rek. am nga moyen. takkal jabar. loolu moo gën parce que boo xaaree ba nga magget nga takk jabar dégg nga balaa doom yi màgg rek fekk yow. Eh, pare nga mm-hmm. Mm-hmm. doom yi torox eh, ah, ah, du mais c'est mieux de se marier quand on jeune. Mm-hmm. dégg nga tu sais combien d'années de mariage. suma aaw bi maa ngi 45 ans de mariage. macha allah suma ñaareel maa ngi 40 ans de mariage. macha allah ñetteel bi maa ngi 39 ans de mariage. ak man ñeenteel bi. Eh? amul ñeent ma ne ma kooku moo yor caab bi. tëj nañ ko kooku tëj na caab bi. yow yow par cinq ans. Eh, eh? waaw cinq ans par cinq parce que j'étais jeune. j'étais am naa doole. waaw déglu ma waay bul ma bul ma bul ma doggale. du ma toog ba ba jaaw nga dem takk ay jaar. waaw Pagasu sànq waxoo ma dem nañ ñeentale et nga kii. <laughs> barkeel kii laa kii. bos bu bi jaa firi tey takk ñaar te boobu nag day ñëw rek mu ne ay eh, sàmm waaye ah, dimbal ma garab a ah, nangam aw ma tous mu ne ko c'est bu toog ba nga bi jaaw ngay yaakaar man man maa lay jógul bàyyi léegi laa war a takk ñaar léegi nga war a takk ñaar wala nga bàyyi léegi ma takk non dégul bul ma boole ak madame dégul ma rek ma bul ma boole ak madame ah, bu kenn sa bu kii def ko léegi bul xaar ba nga màgget <laughs> dégg nga ñooy commencé takk ñaare te bu bu ma seet rek di ma léegi daal damaa bëgg pit ba. loolu bàyyi leen loolu loolu. waaw on termine euh, parce que waxtu bi yow léegi ci faj faj faj bi ngay faj léegi yow ci ñaata temps nga ngay faj li nga xamante ni moom mooy infertilité euh, en plus am na infertilité yi nga xam dañu chronique ba tax na mënuñu ko faj. infertilité am na yoo xam ne dangay faj ba sonn dara doo ki man dara. Mhm. am na yoo xam ne de yàlla bu la ki àndee. de day benn yoon la jël garab rek mu baax. ma ne. kenn suñu émission bi amoon na micro ouvert. Mm-hmm. ñeneen ñu ma ñu ma kii ñu bu ñu téléphoné wax leen. Mm-hmm. parce que kenn mënul wax sa bopp. Mm-hmm. dégg mais yàlla xam na ne lu may def. ah arrangé naa famille yu bare. wallaahi. arrangé am na ñoo xam ne mosuñu yaakaar mukk dinañ am doom ba dem nañu docteur yi ba sonna dem nañu ki sëriñ ba sonna ñëw ki man yàlla def mu baax. loolu nag mënuma ci bàkku loolu loxo yàlla moo ki. mais loolu euh, lan moo la résultat yi lu la koy may euh, ndax gàncax gi rek lay doon cest dire waaw parce que lu tax parce que important aussi. nit xam nga lu tax ma am sens boobu. Mhm. parce que man damay seet d'abord. Mhm. lu war loolu. maanaam da nga koy yóbbu si yónni si si si. si damay scientifiquement waaw scientifiquement damay def recherche scientifiquement. lu war si fajum fajum fajum tubaab. waaw scientifiquement scientifiquement. bu ma demee scientifiquement ma xool eh, problème yi. ba xam kii bi ma jéem a résoudre ce problème à partir de plante yoo a doon dégg nga loolu am na am na plante yoo xam ne dégg eh, boo ko naanee boo ko wala boo ko xoojee wala boo ko yee tout de suite nga gis résultat eh, ki sa waaw am na léegi Pagasu ban conseil nga mën a joxe xool seen bopp xale yu góor yi tamit ah? man lu may conseil bu may jox yomb na monsieur madame bu ñu amee problème doom mhm. ñoom ñaar yëpp jóg dem seet docteur yi mhm. wax ma man de docteurs yi ñu am rajo ñoo am analyse ñoo am lépp dégg nga bu ñu amee résultat yi ñu dem ñu continuer ki docteurs yi bu ñu docteurs yi dem ba télé ñooy ni ma résultat yi. d'accord dégg mais bàyyi jigéen bi di daan dang dang suba ngoon di dem partout di wax. Eh, eh, di koy ndekete si yow la góor ko góor loolu du yoon. d'accord dégg nga. monsieur Abdoulaye Sow est-ce que amul am nga loo bëgg laaj wala. tey jii si li nga xam mooy infertilité waxtaan bi déglu nga ko euh, certainement am na lu la si marqué wala li loo si xamuloon te te te le professeur tey xamal la ko. c'est vrai mhm. ah, jàngal lañ fi am. leçon scientifique. Mhm. Euh, partant aussi ci lu nga xam ne xam-xam. nit ku ñuul ku ñuul mu boole yëpp. ma salu humilité bu mu waxee ni euh, buñ ku ñu dal ku bi dal. balaa ngeen may seet si dem nañ seen docteur yi nga xam ne am nañ élément scientifique su dee ba tey nag man ma def si samay pexe loolu foog naa ni mooy alliance médecine traditionnelle ak médecine moderne te loolu nag mooy suñu Afrique loolu la war a mën développé wu suñu euh, am am benn continent bu développé wu te bàyyi ay aadam bàyyi culture am bàyyi ay pexe mais pexe yi tamit dafay ubbeeku addina dafay dox addina day dox voilà te loolu laa ci gën a saluer lépp lu ma fi dégg jàngal la parce que xam nga man littéraire laa par par lu ma scientifique ma tey ma jàng fi lu bari bari lu nga xam ne euh, su ma ci amee ay xarit ooy mbokk lu nga xam ni euh, dinaa xam tey naka naka laa leen di waxee te ma am ca maandu xam nga nag Sénégal ñëpp am na xam-xam bu nekk nit ki nag munoo amul xam-xam ci lépp dafay am lii nga am li waa ji di wax Senghor doon wax àddina rendez-vous di donner et de la waaye tey lu bari jàngat naa ko ci seen affaire wér-gu-yaram ci affaire infertilité te mu nekk un phénomène de société un phénomène grave de société boo nga xam ne il va falloir euh, communication dans les familles mooy indi communi parce que communication mooy jur lu bëri couple bu dul communiquer rek histoire yi bëri fa mais bu amee communication famille bi am communication on a une stabilité familiale qui est garante la stabilité de la société. Euh, Amina pour terminer. Mm-hmm. waaw xanaa ñu wax ko le mot de la fin parce que ni ñu joxoon ci ay kàddu jeex na Pagos ñu bàyyi la nga wax le mot de la fin. Ah, man de xale yi góor-góor leen ngeen sëy tóortóor jigéen dafa gàtt lool góor mun na dem ba am quatre-vingt-dix ans mu am doom. Mm-hmm. jigéen cinquante ans bu bare bare bare bare femme bu ma mës a gis mu am doom à 51 ans benn femme la depuis 38 ans de service de d'activité benn femme laa gis mu am doom à 51 ans jigéen bu àggee 50 ans en principe jeexal na dégg nga nekk di xaar di xaar di xaar di xaar ba 45 ans ba 5 cinq ans di door a trouver jëkkër tu très peu de sens nga am doom ku bëgg a sëy ngir yàlla pour am doom il faut le faire à temps mais mën nga jàppale ñi nga xam ni tey jii dañu dañu enfin dañu jàpp ne dañu infertile c'est-à-dire tey jii ki nga xam ne tey jii infertilité am na fu mu yàgg fu mu yàgg si moom ba jàpp nga ni kenn mënatu ko faj cest à pour ñu bañ a yàq seen xaalis parce que am na ñoo xam tey jii euh, fu leen wax rek dañuy dem te xam ne vraiment euh, amatuñ benn chance. bon xam nga infertilité loolu mën na nekk loolu. am na waaw. am na am na jigéen yoo xam ne. ovaires yi. Mhm. ñoo nekk micro ovaire. du ñu nen. du ñu nen yi bon lay def. Mm. bu ñu demee scientifiquement prouver loolu. Mm. Eh, bu ñu yàq seen bu seen xaalis. dégg nga mm. wala bu ñu demee ba ménopause installé. bañ a gis réglé. ñuy am tàngat. di ñàkk. nit yi ñu ne sedd na ñoom ñu ne tàng na. ñu noppalu nga xam ne ménopause taxaw na. dégg nga jigéen bu dul gis réglé. dégg nga première des choses à faire faire ba réglé ñëw bu réglé bañ a ñëw. nga xam ne yaa ngi àgg ménopause. Mhm. dégg nga góor. góor. Mhm. góor. Mhm. andropause am na. góor mun na dem ba gën a mag. mais lu taa mu gën a bon. ci góor. Eh, doom yi mu am fekk âge bu avancé na doom yooyu lu gën a bare. day xam problème dañuy xiiboon dañuy xiiboon wala ñu am formation loolu day am. dégg donc loolu yëpp war nañu ko éviter dégg nga. sama mbokk yi bëgg a am ñaareel. nañ ko def à temps. ñu teel ko def dégg nga jarul sëkk jarul dara. jabar xaaral ba am ba am cinquante nga bëgg a takk ñaareel wala soixante ans nga bëgg a takk ñaareel. jabar dañ koy neef dañ koy neef non non damay wax rek damay wax am na wax la. damay wax rek dégg nga coach jabar dañ koy neef dañ koy neef. ma waxuma la de ma la waxuma la. non tu ma tàgg ma yaa kon baal ma bokk. ma tag de waaw ah. <laughs> ma tag te yéen kenn du ci wax non bëgguma nga xaar ba nga jeexal nga takk ñaar neexee yàlla ba beneen émission eh. bu boobaa nag yow bu ma téye nag waaw doo ko daaw am problème doo kon tey du ma wax ah, man lan laa ko wax man dama koy conseil waaw conseil la rek kenn dama koy conseil kay coach bi da takkul kii fit bi da voilà na yem foofu wa d'accord naa loolu boo choisir mono il faut nga dégg mono bi toujours mais xaar ba nga bu jeexal <laughs> choisiruma loolu ah. bu ma dugg changé wu ma loolu dama koy wax fii changé wu ma loolu si ay jabar waaw jar na jërëjëf kon merci. waaw bu ma nag nga jël voilà léegi rek maa ngi ci tànk. jeex na <laughs> kon kon kon <laughs> <laughs> Magal Touba la jëm jërëjëf professeur. merci beaucoup voilà Amina ñu ngi lay jaajëfal. ñu bàyyi la mhm, d'accord gis nga thème bi nga xamante ni moom lañ indi doon par rapport ak infertilité parce que ñu bëri dañu koy laaj ma

xamante ni moom la ñu indil maxu donc on se donne rendez-vous lundi may jaajëfal may dem ba Ndar nag non laa njëkkee di ziar sama sëriñ sëñ Moustapha Saliou di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ndax Mbàkke soxla nañ la lool lool lool lool dem ba Saint-Louis nag di nuyu sama yaay Koura Fall sama tonton Sadibou sama tonton Mame Ngoné ak waa Saint-Louis yëpp maa ngi leen di nuyu on se donne rendez-vous lundi incha allah et je vous souhaite de passer un très bon magal de Touba